bismillahi ma jug bàkk sama mbër mi yow mi sam xel neex baaru maa ñu way kii mbër mu mag fu mu tuusee nga xam ne mbër la gewal yaa dar ko tàgg kat fa mawla sponsor yëpp teew publicité sa kesta secteur de sports public be maroon naan laaj ma kuy sama mbara tay ma wax la xam ngeen mil combat sans défaite ki du ab mbarantaan fiqlu xasira tëgg mbot mu jaaxaan nahwu bayan usul qarmu mu jóg du caaxaan ihmirar sow man tix mu ñuy sow miras ma ko jaaxal balaaxa mu ñuy sow ma ne badix ko jaaxal ñi ñëpp ca xabal la jox xalaangal soo bëggee xam mbar mi demal ba kaw laak ay Bamba yeen lam fa def moo fas caaqo naka ngeen fara feñee ba Banjul ba kuuñ ta Omar je Mor Thiam xool Europe ba Amérique waa asi ne sapon Afrique yëpp nee nañu waaw waa Kawlax yoon a baax tax feñ na sen doom Salilu Ahmadu Ñas moy borom man dali for ya na mus yen ñu laq bi koom sa tabu khalifa fu buumu ne ñu ramdaan ku ki ñu lu la neex laaj serigne hadi lañu lu ñu neex laaj laaj di ñasu dundal ma ne dundal ba kontaan boo naree gàttal yow jëlal samay faan jëri jafe Omar kii ha tax ma xam ñi siisa ngaari doo njor meew mu ko deyay piir mel walay manan walay ñu ànd kontaan أوصيكم بهاد يسمي قيدان في لادي مالي قلد اللموغن ستب مام خليفة ياغ في ندخ موغن